taxaw na. waaw yéen ban gis-gis ngeen ci am rek ci ga. en tant que sénégalais. man pas en tant euh, Samba wala ma non en tant xeex bi laa ñaawlu. xeex bi. jiiñ nañ ko ko jiiñu ko mu indi coow ci réew mi ñu fàtte lépp. fàtte nañ Covid bi. Mm-hmm. Covid baa ngi reye. Mm-hmm. fàtte nañ ko fàtte nañu. njublang bu nar a njublang réew mi fàtte fàtte danu ku nar a toroxal amu askam fàcce nanu lépp léegi li xalaat muy Sonko moom laak du moom moo ko def ak mm-hmm. defu ko ak mm-hmm. ñu nekk ci loolu nan ko jàpp nan ko tëj kon moom la nangam nangam adduna du noonu mm-hmm. ñun bokk suñu façon du noonu ñun parce que léegi wax naa ko keroog ñun xeexu xeexu bitim réew la ñuy xeexe xeexetuñu suñuy arme conventionnelle dañuy dem wuti yeneen arme di ko xeexet loolu baaxul ci réew nan defaraat réew mi nunu juboo foofu sax lay ñëwee papa pour wax ñaari question yëpp sama ñaari papa yi. yéen xam ne en tant que communicateur en fait traditionnel fi réew mi toll instant est-ce que waroo leen toog aussi ñu def benn dialogue ngeen jéem a arrangé un peu. loolu daana am géwél daana ko def. Mm-hmm. parce que booba géwél yi organisé wu noonu. Mm-hmm. Ah? booba mag ñaa ngi fi mm-hmm. ba yu mel ni amee ñu toog ñu waxtaan mm-hmm. da leen daan jaral sax ñu dajaloo mm-hmm. dem seeti kilifa waxtaan ak moom waaye xam nga adduna euh, dafa soppeeku ña daan jiite ak ñiy jiite tey duñu benn ña daan opposé ak ñiy opposé tey duñu benn de nga alaaji papa jën ànd naa ak Babacar Touré ñu dem seeti opposant ànd nañu ñu dem ci kaso man gis naa ñoo xam ne fekk nañu Ablaye ci biir kaso cent mètres naa ñoo xam ne fekk nañu jamakun ci biir cent mètres waxtaan ak moom. Mhm. yooyu moo daan am ci am benn anecdote doguma la yàlla bu la yàlla dog